ñu koy daal dooree ak euh, Anta Babacar Ngom kàddu yi mu yëkkati woon euh, lépp rek ci campagne bi euh, di tontu ñenn ñi ñu dem déglu ko te dellu si. ma dalal seen xel nekk ñi leen di gëmloo nekk waa coalition sàmm sa kàddu bu ñu amee majorité à l'assemblée ñun dañuy bloquer assemblée nationale waaye ku ñu xool ak ku ñu xam est-ce que leen leen dinañu dem di bloquer assemblée nationale ak di bloquer Sénégal suñu juróom-ñeenti xel xalaatu ko assemblée bu ñu ko yokku du ñu ko wàññi du ñu ko bloquer et bien au contraire bien au contraire donc yooyu ay euh, dañu bëgg a déconcentrer dañu bëgg a jaxase xel yi wax na suñu noonu ba nga xam ne Sénégal yi dañuy tiit ñun tiitaluñu kenn.

waaw xam nga Anta Babacar euh, tànn gi mu tànn ànd ak ñi mu àndal euh, lu ko nar naqari ci politique looloo ko koy teg. Ah waaw parce que ñii euh, duñ ko jariñ te dañ koy yàqal. Hmm. Hmm. moom d'abord am na <coughs> amoon na avenir ci. mu defoon choix tànn moo tax tànn dafa baax tànn ay àndandoo dafa baax parce que ñii mu àndal euh, dañ koo dugal sax ci li mu ne hmm. maanaam yiñ ko dugal di ko wax ne ko lii mooy politique du politique parce que moom wartoon a ñëw pour noonu ak kenn moom dafa amoon benn avantage doon te nekk na xale ba noppi dugg ci politique nga xam ni jaarutoon ci lenn dem na jàll parrainage jóge ci parenage ñuy dem élection kii li gënoon ci moom sax mooy mu jéemoon a jiite ab liste moom hmm. moo doon gën ci moom bu demal boppam doon nañ ko kiiwal lii muy weddi nag lii du wax joo xamante ni nit ñi dañoo xëy rek sos ko hmm. mais wax la joo xamante ni mi ngi jóge ci ñi nga xamante ni ki nga xam ni mooy seen tête de liste wax ji ci moom la jóge parce que kenn adressé wu leen woon yëf yi parce que dafa am ñaar moo fi am dafa am ñu bloqué réew mi ba nguur gi munta doxal loolu moo waral ñu dem ci élection législative ci jamono ji mm-hmm. malgré problème yi yëpp nga xamante ne bi am na état ne ah comme que bloqué nañu yëf yi il faut ñu jéem a dem ci ay élection parce que député yi jéemu ñoo collaborer pour jéem a dem def nañ wax nañ pour orienter budget bi ñu lànk ne duñ ko def daal di ne Ousmane Sonko daf leen wax lu leen naqari donc boycotté am parce que ñoom kenn du leen wax lu leen naqari mhm. ñu jóge fa wax leen ne leen lu jëm nga xam ni promesse la boo xamante ni président daf ko defoon askan wi avant élection wax leen ne leen dana ko dindi ñu daal dee lànk ne duñu ko def parce que ñooñu seeni xarit lañ donc ñu gis ni réew mi demut dikkut ñu xëy wax ne dañuy daaneel assemblée dañuy daaneel gouvernement ñu daal dee wax yooyu yëpp bi loolu yépp amee nag président jël ay matukaayam def li nga xamante ni moom la war a def dissoudre assemblée nationale loolu ñu yóbbu ci ñu def lool loolu bi taxaw ca Maïmouna Ndour Faye comme ni nga ko waxee wax ni bu fekkente ni bi kii nañ leen ñun nanguwu ñoo jël primate dañuy bloqué lépp dara du dox kenn du gouverner loolu kàddu la yoo xamante ni tête de moo ko wax donc kenn sosalu leen ko mm. kon moom dafa mel ni dafa dugg ci mbir mi te xamul tëgg mi lan la maanaam ah. dafa ñëw rek di fecc te xamul tëgg mi lan la li gën nag mooy nga balaa ngay dugg ci dara nga xam ko <coughs> xam lii ngay dugg lan la nga xool ñi nga war a àndal ak ñoo war sa àndal parce que tànn ay àndandoo dafa baax mais moom dafa mel ni rek dafa ñëw rek sa mboxloo daal day dugg ci pecc mi <coughs> ànd ak ñoo xamante ni bii lenn dong leen linké mooy contour nañ ki nga xamante ni kii mooy Ousmane Sonko loolu mooy li nga xamante ni mooy lii ñuy wax nii nag naan bu ñu faloo lii la ñuy def ak laa la ñuy def bu ñii tey ku leen tegoon ci boppu assemblée nationale. loolu sax mënul ne parce que sénégalais yi ci seen jëmmi bopp ay nit lañ duñu ay dof. sénégalais yi mënuñu mobiliser barki Dembo Ndiaye fal président yi ci joxoñu usmaan Ousmane ko tey Ousmane ko laaj leen ñu ko kay lànkal loolu mënul ne sénégalais yi ñu cohérent lañ ñu xam lu ñuy def lañ tey xam nañ liñ bëgg bu fekkee ne politiciens yi dañuy defee ne dañu mën a nax nit ñi ñi ngi nelaw li la koy wan mooy li ci mbedd bi gis nga ko sénégalais yi pare nañ ngir tourner page u bi Ah. Anta nag mi ñëw ne saraax ci système bi moo ko lu ko naqari moo ko teg boppam kenn teg ko dara. kon moom dafa juum ci tànneef bi. selon yow sa gis-gis non tax mu dugg ci mu ñëw rek dugg ci système bi mm. parce que loolu moo ko tànn waaye laa nan la yëf yi demee parce que tamit bul fàtte ni Anta mi euh, daan na jàppale Macky Sall ci ay jamono kon bu ñëwee tànn yoonu système bi. Mm. donc bul weddi ni ñooñ système bi la. waaw parce que foofu la xam. mais ñoom ñoo ne fi mu toll président bi dafa cate pour pour mu toog benn place na <laughs> il faut ñoom ñu voté leen majorité. waaw pour réew mi soog am président. xam nga président euh, bu cate ñoom ça dépend ci nan lañ tuddee cate waaw lan lañ tuddee cate ñoom bu fekkente ni bi dañu jàpp ne parce que élection présidentielle moom demuñu ko élection bi ñu dem législative la ngir far ay député. Mhm. président bi sénégalais yi biñ ko joxee it jox nañ ko mu toog waaye ngir mu toog ci photo bi mm. donc faaw ko ñu jox ko assemblée nationale ngir mu mën a toog normal donc moo tax pareen saay boo leen demee bu ñuy wax ne dafa cate mën nga ko interpréter ne mm-hmm. mën nga wax askan bi ne wax nañ dëgg léegi askan bi nag ñoo war a fexe ngir président toog dëggantaan ba ëllëg luñ ko laaj mu kii ko moo tax ñoom xamuñu sax. lu mais ñoom dëgg gi seen boor lañ ko fi. non non parce ñoom nañu leen fal. Ah. majorité ñoom ñoom dañuy politique di dañuy wax di suux maanaam ñu mun ta wax ñoo fa daje. Hmm. seen euh, coalition bi. Hmm. waaw ñu mun ta wax doo nga fa daje xool leen rek déglul seeni wax Pape Djibril Fall li muy wax moo guddeeg bëccëg day jël guddi ne mooy bëccëg jël bëccëg ne mooy guddi du dëgg Thierno Bocoum buy wax hmm. euh, day jiital. xol bi fàtte xel mi Barthélemy buy wax day jiital xol bi fàtte xel mi waaw ant nag moom ku ñëw rek la xamut nu muy doxalee. boo ko mhm. déggee muy wax mu xamoo sax fu mu ci féete. maa du bële la ci la moom ci li nga xamante ne mooy yëf yi moo taxit gis nga ko. Uh-huh. vraiment mi ngi commencé passé à côté. am na solo euh, macha allah mi ngi noonu en doy na waar euh,